jàng ida zulzilatil ardu zilzalaha fukki yoon des na ko ca bindal tuyaaba ju baari te des na ko jéggal bakkaaram yépp bu nekkoon ci njàqare it yàlla dana ëlbati njàqare ba te dana ko wattu ci balaa àdduna ak àllaaxira te dana ko musal ci ak ñàkk te dana dolli am koomam te dana wàcce ci moom yërmandeem ak yeneen ak yeneen mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral nga dellu ci xoratu ay ni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 147. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi si bitim réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo ne dugal nañ a xam li nga xam